taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gàmmu Badar Gueye édition 2020 mbokk yi comme ni ngeen ko àndeek yéen at mu jot gàmmu gi yegsiwaat na ren di gàmmu goo xam ne it amal nañu ko ñi ki nañ ko doon amalee at yi weesu bi ñu xëyee suba doore ko njàngum alxuraan ak njàngum xasida comme ni ko sëriñ bi diglee la mbooleem dëkk bi ak tund yi ko war yëpp nag ñëw saafonteek sëriñ Cheikhouna Gueye mi nga xam ni moo fi nekk xalifa alaaji sëriñ Gueye Badar ñëpp ñëw sàmmanteeg ñëpp ñëw saafanteeg moom sàmmanteeg coloré waaye tamit ziaranteeg sang bu tedd bi ngir dundal bis bu tedd bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel yonent di sallallahu alayhi dëppoo ak cosaan lool si gàmm gi waral ñuy del siwaat lenn si taarixu dëkk bi waral it ñu mën a del siwaat lenn si li waral bis bu tedd bi ñuy amal fii si Badar Gueye di gàmmu gi ñu leen di siyaare di leen balaa xam di leen ko baal a ah, te maanaam di am cawar rek wax ci bis bi ndax bis bi di gàmm gi ki ko fi sos di ko fi def muy El Hadj Serigne moom kenn la woon koo xam ne kenn la woon yonent bi kenn la woon Sëñ Tuubaa la woon doon sëtu borom dëkk bi te maanaam lii yépp a ah, bu demee nii yàlla ak moom moom la moom moo ko woote daana wax nag moom jëm boppam daa ne nit de bu demee fenn ci barab fu dara nekkut bu demee ba lépp fekk ko fa na xam ne yàlla fekk na ko fa fii nag nga xam ne fi la nekk muy Badar gi jii day dëkk boo xam ne dëkk bu alxuraan la bi sëriñ bi ñëwee ñëwagut booba xaw ay sëriñ li woon jàng alxuraan jàngale képp nga xamoon bi sëriñ bi ñëwee itam dañoo daal di laxasu wuti sëriñ bi jébboo ko suñu bopp ndax sëñ Mayit mi nga xam ne moo moo sasoon dëkk bii xaadir la woon sëñ Omar gi nga xam ne moom nekkoon na fi di doomam sëñ ma asa maam sëñ Tuubaa lañ jébbalu bi sëñ bi feeñee maam Serigne Fall mi nga xam ne bi muy ñëw di seet sëriñ ba dugg ci dëkk yi ba dana ah kamay sedd day wurus la waaye fii de xaalis na fi ba mu mu ne ah gi xaalis bi mu ngi fi kamay sedd nag day wurus muy sëñ bi sëñ Omar bi nga xam ne nekk fii dëkk bii dafa nekk mboolem doomi sëriñ Tuubaa yi eh, maam leeri sëriñ Tuubaa ñi fi teewul ci dëkk yu bëriwut sëñ sëñ Suwaybu bu dafa daa ñëw sëñ Mourou Moustapha dafa daa ñëw ànd ak sëñ Bassirou fi la ñu bay fa bayal ay toole àllarba at mu masaa jot sëñ Mourou Moustapha daan fi ànd ak ñu leen fi béyee toolu àll toolu àll fii ci Badar gi gii lañ ko njëkk a béyal Cheikh Moussa mu jot moo suñu soxla sëñ Mouhamadou Lamine Bara da doon ñëw fii saa bàyyi ma ko nettali nee na da bu masaa ñëw ci péncum Badar mi lay yendu bu ko defee bu ñëwee nit ñi di di bind seen tànk kuñ bind moom mooy sa assurance at moom doo ci fàtt sëñ Mouhamadou Lamine Bara dara ko def fii sëñ yu Mbàkke dafa doon nekk bari na njaboot sëñ Tuubaa yoo xam ne ci maanaam suñ xaari mu suñ mënu Moussa fii la jàngal Alxuraan fii daal da kër daara la joo xam ne alxuraan mooy mooy mooy dëkk alxuraan maanaam dañ ne mooy kër mooy këru gaa yu baax masjidu Abraar lañ ko tudd wàccu kaay gaa yu baax mboolem ko gis ñëwal suñu Tuubaa gi ñëw nañu fii boo gisee dëkk bi mel nii loolu la ah loolu nag ñu ngi ci sant yàlla yéen a ngi sant ba ci suñu waa suñu waa juri dañ ci sant alaaji sëriñ gi itam ndax tey jii de maam moom feeñal na ci dëkk bi baree bare ndax dëkk bi maam ñu baax bari bari nañ fa lu baax bari woon na daara alxuraan loon waaye ñu bari mujjoon na bi Touba jógee dem nañ Touba moom nag moom mujj delsi doo dëkk bi ba loo fi gis nii ba gàmmu gi tey ñu di ko fee ah ak njabootam tam ñu ngi leen sant di leen gërëm ndax li ñu wax mujj wuñ poussé mu réer ndax ala seen géej daanaka badar de ku fi ñëw xam ne fa fonk am ndax dëkk badar dëkk la boo xam ne xëy na ñëw na. wax ku fi ñëw fekk badar gi de xam naa ne fonk fonk na fonk na ma ala seen di ko daa wax badar ko lool tam. te xam ne dëkkub xéewal maa fu ñu sakko fu ñu jëlee ay xéewal mu yéewal ñëpp dafa xéewal Badar moom lépp boo fi ñëwee seen barab yi nga dem fa ñu am fa soxla soxla ñu am boo ko fi incha allah Serigne Cheikhouna Gueye mbooleem tund wi it fekk si nañu ko si bu tedd bi ñi dëkk si wërngalu euh, dëkk bi di Badar Gueye ñoom ñëpp ànd ak ñoom sibis bi ngir mën koo dundal nu mu gënee mu ci ayib Badar Gueye dëkku maam may Faat Ndaw mi nga xam ne moo sañ dëkk bi doonan góor yàlla gu màgg goo xam ne léppam dafa doonan diggante lislaam ak jàng ak jàngale doonan koo xam ne léppam da ko ci lislaam daan sañc ay dëkk ngir rawali diine daan fondation ay doomu aadama yoo xam ne seenu kenu mooy dundal lislaam sañc Badar gii sañc fi ci ragal ak maandu ak bëgg lu waaye nag bi mu fi demee dafay bàyyi njaboot goo xam ñoo ko dundal dundal googee ñu ko doon dundal na mu ñëw nag ci loxoy alaaj sëriñ Jéy mu yaatal ko nag ba ñëpp xam ko mu ñëw nag ci yi seexu naa mi nga xam ne mooy ab xalifaam seexu naa nag dafay mbokkum ñëpp waaye di kóllëre ak ñëpp ba noppit ku bàyyi ma amoon mu téel looloo waral njabootu Maam Mor Jaara gi di ay léppam nag mu jàpp leen ngir yàlla jëm sëriñ a waaye ñoom it ñu jàpp ko ngir yàlla jëm sëriñ Tuubaa kóllëre looloo waral waxtu wu nekk ñu ñëw sunu sang di sunu sëñ di sëñ Abibu mi nga xam ne moo jiite délégation waaye nag lu ñuy njaaga njaag njaag la nag mooy sëñ Baara mais nga xam ni digganteem ak sëñ Seexuna naa laa ko gaaw dara dox loolee nag mboolem ay bokkam nag ni ko su diggante ak sëñ Seexuna ni nga ko jàppee ba ñëpp xam ko ñuy dañ ci jàpp ci lool kiit nag di Mame Balla moom it nag di seen mbokk ak mboolem nag ñu nu àndal ñëpp ñu ànd délégation bu am solo jóge Mbàkke Bawol ñëw fii nag ci di ñaan nag ci bàkk Sëriñ Tuubaa yal nañ ci yàlla dafa feex ñu ngi sant ñëpp di gërëm man sannani xayra xayra xadimil mustafa gàmmu niki ni ko sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba digle bi sukkarin aw laham mi dundal ko dafa ànd ak bernde bernde googe it ñu koy def si nu gënee mucc ayib yaatu na lool si bis bi manato manala da mayamba sant Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ngi ñaan si barke borom Badar gi euh, ngeen xam ni waañ wi moom defe naa man mi taxaw nii def naa fi lu toll si ñeent fukki at yu manqué tuuti euh, ngir ñu nekk si waañ wi itam xale yi sumay doom lañu ñenn ñi ñu ci des sumay sët ñu ci des sumay jarbaat bi ma fii nekk itam wax dëgg yàlla nekk mu fi woon ak kenn ku dul man kese ak ay ay jigéen ay mag yàlla dogal na tey jii wax dëgg yàlla sant naa yàlla bu wér a ndax su ma njaboot rek tey ñoo nekk si waañ wi euh, di ko santaat Serigne Badar Gueye bu wér a wér ndax toll nay jamono yoo xam ni maanaam waañ wi wéetoon na lool métti woon na lool itam waaye fii nu toll nii may wax ak yow nii wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu wér a wér a wér a wér xam nañ ni yokkute itam am na si kër gi bu wér a xam nañ ni yokkute it am na si waañ wi bu wér na ngeen xam ni daal lépp lu fi wax mu dëng nun noo noo dëng rek waaye sëñ bi moom jubalal nañu lépp wax dëgg yàlla nun amul dara lu nu manqué amul dara lu nuy sonal fi mu nekk nii toll woon nay jamono nag metti woon na lool lool lool taroon na lool tàngoon na lool waaye nag wax dëgg yàlla lépp daal fi mu nekk nii sedd na guy ñoo ngi sant yàlla sant Serigne Touba sant borom Badar Gueye mi nga xam ni moo sos gàmmu gii nun noo jëkk a nekk ay taalibeem fii si sowu jant di ànd ak moom di ñëw fii ba ñu daan ñëw fi wax dëgg yàlla booba yoon wi neexul neexaay ne bi waaye nag fi mu nekk nii noo ngi sant yàlla bu wér a wér na ngeen xam ne daal sant nañu bu baax a baax a baax a baax taxawaay bi rafet na lool yéen itam noo ngi leen di gërëm ndax lii ngeen def mënoon naa ñàkk waaye bu ngeen ko defee nun ngeen di dimbali di ñu jàppale ngir ñu xam ni nun noo ngi liggéey si waañu borom Tuubaa nu ngeen xam ne daal suñu bunt moom si borom Tuubaa mooy borom Badar Géej noo ngi leen di sant bu wér a wér a wér والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جبل رمي أنت حبيبي يا خليلي كنت قبل تبيبي يا كتاب الحبيب وخليلي وكنت قبل تبيبي يا كتاب الحبيب رمي أنت حبيبي ci kàddu yi nga xam ne si ni Serigne Moustapha moom Alaaji Serigne gi daa feggoog mbokkam wëllëreem loo xam ni njëmbatum mag ñu baax ña lan ñoom ñii ñu ñëw di ko suuxat waaye mujj woon ko mu réer yow nag sëriñ pap mu mel ni li olof njaay naan ka fekke maa xam nu dugub ja toll mooy sa teewaay bii xam nga doomu aadama bu ne mën naa tefli waaye nag nitug yàlla moom la suñu borom di nangu ak lorom te lii loru nitu yàlla la xam nga mag ña dan daan xam seen jëf fi koy def mi ngi mel ni baykat wu yor aw jiwam xam lew wam koy ji mag ña danoo xaman seen jëf fi koy def alaaji sëriñ Gueye loolu moo ko dalan da daan maam daa xaman jëfam fi ko daan ji kii day mooy imaam Moustapha Gueye mi ngeen xam muy cosaanam di fii muy seen doom waaye na leen leer ne ñëwul ndakaaru nag jël jikkoom yar xal ko yaraax yal jikkoy ndakaaru déedéet jikkoy diine la yor jikkoy ngor la juddu bi mu bi mu jële fii ak aada cosaan andi na ko téye ko waaye téye na lislaam fexe na ba waajuram wa fa mu tegan tànkam mu ngi fay teg tànkam kon géey fii nga toog bu sëriñ Gueye raay mu sedd ñëwoon doo doo defaraat toogaay dëkk bii nga ne tey muy Badar wax nga ma léegi diggante Badar ak maam Cheikh Ibrahima Fall Lam Fall Baab bi muy dajeeg sëriñ Touba fii la jóge kon loolu tey dafa mel ni ngandu gi yamb yamb la def ci lem mu def ci lem waaye li am solo mooy jëmm ji nga xam ne sëñ ji bi jaay seen waajur yi doon ànd ànd leen nii rek la. moom moo daan ànd ak sëñ Ablaye di fekk si sëñ Gueye si doomi sëñ Ablaye ñëwee ziare si doomi Alaj Sëriñ fii si Badar gii mu ñëw toog fii xeel a toog man ko yegsil parce que da doon seede ànd bi kon li ma fi fekkee yàgg na te sëriñ war na ma lu mu wanul ñu bëri su ma su may sori su may dem ci sëñ Gueye sax damay bëgg a sori foo xamante ni su ma ci soree day am ko mu daaneel te bëggatuma ko ndax daanu xajatu fi sëñ Moustapha kuy dégg ku nekk Sénégal di dégg xutbaam saa yu xutbaa nga xam ni doomi sëñ Gueye doomi sëñ Gueye moo yor micro di wax ak réew mi di wax ak adduna bi xol yëpp di sedd li Pape dayam eh, day lu ma ci fekke ndax eh, fii li boole sëñ mu Diagne ak sëñ Ablaye ak sëñ Umar moo boole ala sëñ Gueye ak magam ju baax ji fi bàyyi ko ren ndax fii mboolem kilifa yu baax yi fi newoon ci jamonoy sëñ Modou Moustapha Mbacke fii lañ daa béyee toolu àllarba fii lañ daa béyee booba yooye jamono yëngu bii gune yi yëngutu way juri ñii koy def ku mel ni sëñ Aliou ku mel ni sëñ Mujjaañ ku mel ni sëñ ak ña ca war a topp fii itam bi Alla Sëñ Gey dikkee taxaw ci dëkk bi liggéey ci dëkk bi ni man de su ma sañoon Badar laay lu nu bëgg lépp dina nu fekk loolee mu mu daa ko doxee daa ko waxee fii man de fekkee naa fi Alasine Gueye tax di ji ëyën wër na ma ne li ay fas ci réew mii ëpp nañ ñett téeméeri fas fas bu liggéey ba wàcc borom dinaañ dina reer dina dindi juróom benn téeméer jox man fekkee naa ko fii bon nag su yàlla dogalee pap euh, bi ba awee suñ koy tàmbali liggéey beeg léegi man de la ma defoon laay laay yok man dama daawal bagaan ak cere kenn santuma ko woon maa ko daa def ci ci may bay loolee loolee ba tey maa ngi koy def. sëñ bi sëñ Moustapha Gueye mu ni maanaam sëñ bi sëñ ji dafa def loo xam ne ñun mënatuñ ko koo fay. dafa am luy wund lu bëree baree bëri sa njëriñ ndax kóllëre dafa am doole lool ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni bisu penc dina tàng lool naaj wu tàng tar lool ñu bari dinañ jaaxle mu sopp ci juróomñaar ñaar ni juróom-ñaar ñoom coono yooyu du leen dal benn ba mooy ñaar ñi bëggante te yàlla rek tax loolu mooy payam loolu mooy coloré te te ñoom ñaar ni ñu ànde woon daf doon bëggante rek ci yoonu yàlla te yàlla rek tax kon bu jamono demee ba xat ci ñun yàlla xam na ni xol moom fa nekkoon rek la nekk waaye jamono xat na ba gise bi gëj te sëñ Ablaye moo fi daan njëkk moo fi daan mujj ba tantu Badar masuñoo dem ba mu xat ba ñu génne kaddu sëñ Ablaye bu doon fajar la sëñ bi di waxit day wax sëñ Ablaye mu wax ba pare lool nag dafa am lu mu àndaloon dafa am lu ñu àndewoon bëggante ci yoonu yàlla muy Serigne Touba ak Mame Cheikh Fall kon loolu boo ko dekkalaatee yow sëñ bi li nga def sëñ bi xamoo ko sax sedd na xol guy ci biir xolam la egg jataay yëpp a neex waaye sa jataayu tey bii ñi mu ci néeg bi léegi ëllu Mbàkke lañ dugal ne leen parce que bëgguñu dem génnaan nañ julli waaye sa jotaay tey bii pour ni la loolu yëpp ànd yooyu dafa bëritul ci jamono ànd rek te yàlla tax Sëñ Ablaay bu daan ñëw ci kër gi ci ab pantere lay dal te bàyyi na barab yu yaatu bu ñëwee dañ koy dalal ay taalibe ma fa nekk wala ak njabootam te lu mu bëgg it ñu ko waaye ànd gi mu àndoon sëñ bi muy àndu dëgg moo taxoon ba bu ñëwee ndakaaru foofu noonu la muy xat-xat foofa rek lay nekk kum fa fekkit sëñ bi kenn يوم القيامة بالبسرى وخبطات ومن يلازم في الدنيا مجادله يوم القيامة بالبسرى وخبطات ومن يلازم جل الدهر مسعده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 ñu ñooy taxaw togg yi eh, di taxaw lépp loo xam si day day dem ci day dem ci togg yi suba ngoon ànd ko nag ak waa daayira bi ñu ngi nii xale yi ñu ngi nii àndu ñu ñëpp barki dem ba léegi nag ñu ngi fi ci ci liggéey bi barki dem ba léegi ñu ngi ci liggéey bi euh, lépp loo xam ne si rek soxal na soxal na bis bi euh, nga xam ne day jagal bis bi euh, ñu ngi ci tàyyiwuñu duñu tàyyi duñu bàyyi duñu sonn ànd ko nag équipe bu daayira bi nga xam ne mooy daayira Tawfeex bu Touba Kokki Mayib nga xam ne Kokki ak Badar day benn euh, ni nga gisee naa dëkk yi dem nii lépp ñoo ko bokk benn lan maam yi benn lan ñëpp benn lan waaw moo tax boobu ba léegi taay wunu sonn ñi ngi ci di di góorgóorlu xale yi boobu ba léegi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci ñi ngi ci wi ñi ngi ci dëkk bi lépp lu war ci bis bi ñu ngi ko ne ngir jëmmi jëmmi borom dëkk bi ngir jëmmi alxaaji Serigne géey ngir jëmmi seexu Cheikhouna Gueye mi nga xam ni moo fi nekkal alxaaji Serigne Gueye ca mat ko sëkk ñu koy ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam te wëral ko ndax moom kat li li war ci li war ci ndaw ñi mi ngi koy def waaw ndax ñëpp ñi ñëpp nga gis kenn koo ci gis yaakaar nañ bis bi moom bisama te xol la ñuy jëfee ku leen gis xam ne xol la ñuy waaw ku leen gis xam ne ndax duñ taay duñ sonn kenn képp koo ci gis yaakaar nay bis bi moom rek moo ko war a jagal te euh, jëmmi sëriñ bi nu leen jàppe ñu ngi nii xeebul kenn sëriñ bi ñëpp lay woo ñëpp lay waxal ñëpp lay digal ñëpp lay xelal nit ku baax nit ku laabir ah nit ku baax nit ku laabi nit ku am yëg waaw di boole nag di defar loolu rek la fi nekkee waaw di sampi daara di di di di jàngale alxuraan te yàlla tax boole ko di dimbali képp lépp lu mën ci nit ci dimbal da koy def waaw kon Serigne Cheikhouna moom ñu ngi koy ñaaneel bu baax yàlla suñu borom guddal fanam te wéral ko barke Seexul Xadim barke Serigne Touba ba li mu fas yéenee liggéey ci la waajuram ya la waajuram yi sémboon mu yeggale ko ba sémb yëfi boppam waaw ba sémb yëfi boppam te bu sémbee bu mu yegg waaw nay dem rek waaw kon ñu ngi koy ñaanal baax liggéey yàlla na fi yàgg téwér barke sëriñ Tuuba tamaira hura ndisi yàlla bi nga dalaay xam nga dëgg sëñ bi ñun waaje bis bi la nañ ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim dugg ci génn ci alhamdulilahi baal mi na kii mooy aj ami Gueye tubaarkàlla badar rekk ko ñor bu alaaji sëriñ Gueye ñëwaatoon du defaraat toogaayam tubaarkàlla démb ba léegi ci baañ bi lan fanaan mi subi nan tubaarkàlla ginaar yaa ngi nag yaa ngi tubaarkàlla kontaan nan ñu jógee nag tubaar tubaarkàlla ami Gueye dara ñoru ko rek du du badar foo ko woo du Badara rek ñuru ko kontaan nañ benn yaa ngi dara jeex fi mis bi ginaar la ndekkee tubaarkàlla mis xar yaa nga ne dara jeex fi dañu ñaan Massiré Issa Dieye mu gudd fan te wér te sëñ seexu naa tubaarkàlla mi xalifa bi ñaana ko gudd fan moom ak wér ah ñoo ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di sant sang-sang yi yi bis bii paral bi nag du gudd day gàtt macha allah ñoo ngi sant yàlla di ñaan ci cheikhul xadim di ñaanal euh, sëñ Seexuna yàlla na ko yàlla bàyyi ak njaboot gi mu yàgg noo jiite di ñaanal sëñ Tafa di ñaanal Adja Ami Guèye mi nga xam ne mooy seen mag waaye ñoom ñooy xalifaam tey sëñ Seexuna mooy sunu xalifa albatu ku tudde Adja Ami Guèye sunu xalifa ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal di ko wax ni bis bii chaque jour rek day gën a kawe sunu njor. mbooleem diwaan yi nekk fii si dëkk bu tedd bii di Badar Gueye kër yëpp nag kenn desul ginnaaw si yële bernde bernde yi nag ngir mu gën a yaatu ba ñëpp ku nekk mën see gis sa bopp loolay waral nag ni ngeen ko séenee si image yi mu doon lu yaatu loo xamante ni bii bàyyiwuñu dara ginnaaw bépp xeetu bernde bu bakkan di yittewoo ngir mën a sant bu baax a baax suñu boroom teew na fii lépp ngir dundal gis bi.

di sawar ci li may laaj lu neex a waxtaane la ndax lu ñuy fàng moom kenn du ko jeex di ñaan suñu boroom ki nga fi nekkal Cheikhul Khadim mu seex Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi ak bépp taalibe ak bépp jullit moom dañuy nafaraat rek nafaraat nafar moom dañuy nafar rek saa bu du jotee ñu nafar waaye wax ji moom mënut a génn bisu murid sadiq la mu teg ko ci di delloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam njukkal gàmm moom li Sëriñ Tuubaa wax doy na fa kullu man anfaqa fiihi mawliduhu musharrafi maa la bi xayri sharrafi wala bi xaddi dirhami fa innahu kaman xadar yawmahu nañ wa sabar wa yawmul badar wa nazar xayra wala mu fahmi waaye rawatina mu nag tegu ci loxoy murid sadiq muy sama baay di sama xarit dama nungu nii li ñëpp def la def su may ñëw Badar damay am damay am damay am cawarte ndax damay dem xam ne maa ngi dem fu wóor maa ngi dem ci lu wóor waaw loolu suñu borom rek koy seedeel di ñaanal ki nga xam ne mooy xalifaam bi suñu ceexu naa géey yàlla guddal fanam ak i rakam ak soxna ami géey ñëpp ndax ci li ñu war a nekk rek lañ nekk waaye mun mënuñoo nekk ci leneen lu dul lii buñ ko jéemoon du sotti ndax tokkil na leen ci jur na leen ci kon bis bi mën na faj lépp wax naa ko wax lu mën na faj lépp bis yu mel ñëw na nga xam béréb bi ngay dem fu mu doon nanga xam te la ngay jóg di dem lu mu doon ndax bérum bis bii bis da ko jaroon lu ne bu musaan ñëw da nga koy gis ci moom li nga naa gàmmo bu ñëw ci sëriñ bi ni sëriñ bi bëggee waaye sëñ bi sëñ Gueye bu badar musaan ñëw da ngay gis muy bëggee waaye loolu tey foo mu toog moo gën a xam ne bis bi suñu borom nangu na ko bis bi daal bisu tawféex la bisu bisu cant la bisu ngërëm la bisu lépp la attan lépp lépp lépp lépp ku indaale wér gu yaram fas ko ci bis bi ku indaale bunt bu te tëw ubbeeku ci wërsëg fas ko ci bis bi loo indaale loo xam ni mun a ñàkk te soxla nga ko li man leer ci darajey Cheikh Mouhamadou Mourtala boo ko ñaanee suñu borom def ko kon daal Mourtada wax ji du gudd saa su ne dañuy nafar rek man sama waa ji sama waay la sama xarit la ma bëgg ngir sëriñ bi kon Mourtada ñu ngi lay sant di la gërëm dafa la tawféex ba lii ngay liggéey sans borom barkeel ko kon hamdan li rabbi xayral mu xadara ma xalbi bi la ci dehi dahu sukuri bi la kufuri wala si min fi day asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf yaa kitaabal يا كتاب أكرم أنت حبيبي وخليلي أنت خبل طبيبي يا كتاب حبيبي تدلي يا كتاب أكرم أنت حبيبي وخليلي الفضل تبيدا يا كتاب الحبيب حبيبي أنت إيسي ومفري أنت جاي أنت كنزي ظهر كل العبيد waaw mbokk yi bàyyi xel Tawfekh Production tey ñëw ngi fii si gàmmu Badar bi ñoo ngi toog nag ak sëriñ Ismaïla Mbacke moom sëriñ Modou mu sëriñ Abdou Khadir ku ne xam digganteem ak kër gi tey jii mu teewoon si gàmm gi si Ismaïla ñu bëggoon a xam sa teewaay si bis bi. aùzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani wa inni u'iizuhaa bika wa rajiim rabbi a'uuzu bika mina masaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi wa rahmatullah ginnaaw bu nu nuyoo Cheikh Mamadou sunu borom may ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñaan ko njabootuk Sëñ Tuubaa nag ci teew gi nga xam ne teew nañ ko fii ci Badar yaakaar naa nga xam ne dëkk la bu yàgg bu am solo ci taarixu ay kilifa sampoon ko eh, xam naa tànk yooyu nag lañ doon topp si rek ak kóllëre moo taxoon ñu ñëw si bis bi doon siyaare si di barkeelu ci guddi yonent bi nga xam ne ñoom dañ ko fi màggale hmm, looloo ñu fi indi woon xam naa nag eh, li ñu liyee dëgg nga xam ne moo tax eh, ñëw ci bis bi mooy ku mel ne soxna Mously Gueye ak Serigne Abdoulahat Gueye nga xam ne doomi Serigne Baye Serigne Gueye raay mu sedd Baye Serigne nag di am am am cër bu mag ci yoonu sëriñ bi macha allah ak njaboo tamit yoonu sëriñ Touba bi ñu ci wone ak njàmbaartu gu am solo am solo yaakaar naa maa ngi ci nuyaale kenn koo xam ne sëriñ Saliou euh, sëñ Saliou Gueye Badar jàmbaar la ci yoon wi lool wante jaxasoo bi taxu koo demee waaye gis nañ. saa su yoonu sëñ bi amee ñu ci addu di ci wax naka sudul noona mu mu wax ci leeral ci ku mel ni soxna musli nag nga xam ne mel ne màggalu sëñ Abdul Xaadar saa su ñëwee day sonn ci ñun mu jaral ko noonu nag kooku it moo tax ñu ñëw fi Abdoulaat Gueye mi nga xam ne it moom it yàgg ñëw jaxasoo waaye bis bi daal xam naa li ko wund mooy yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, ñoom it ñu jëlaat bis bu mel ni nga xam ne bu bis bi delsee ñu ñu ci ñu ci ñu ciy fàttalikuwaat yonent sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal bu ko def comme nañ ko daa defee yàgg naa am te lu am solo la mag ña daa ko def ba sëdi di ko def fi mu ne mbokk yi bàyyi xel Tawfekh Production ñu ngi si gàmmu gi ba tey ak euh, gan ñi nga xam ne ñoo teew ci bis bi ñu ngi toog ak soxna Mame Mbare Mbacke moom si bas roqee euh, Mbacke moom tamit teewaayam ci bis bi ñu ne ku ne xam na digganteem ak ñenn ci waa famille bi ñoom tamit yenn kàddu lay yëkkati ci bis bi rek. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax ah, ci bis bi euh, soxna muslee ko waral xarit di suñu doomu ndey di lépp ñu nekk mu nekk ci moo tax bisam moom daanaka ñu lay mën a demee du ñàkk bañ a mën a teew di sant ñëpp di siyaar rek waaw di suñu dëkkub maam tamit ñu bokk lépp. ñëwoon ci gàmm gi rek fas yéene dundal bis bi ko sëñ bi déglee rek waaw sant nañ baax daal wax gi lañ xaw itam ne xam naa waaye kontaan nañ dootul ñàkk bay bala ay sa bamba ya di xëy di gonto ka farde yaa dëggal yàlla lépp lam santaan tub ba farde yaa defal Mustafa la xawsiyatan noon yaa de xayrul xadimi fi diwaan xawsiyatan noon yaa de xayrul wu gërëm loo nga yàlla gërëm loo nga ca gërëm loo te ca gërëm loo su boobaa gis mu day jib waa ibu day jib su boobaa Cheikh Ibrahima Fall min sel jano borom Touba man Cheikh Rafa jàmbar ja Cheikh Ibrahima Fall lamp ba gis bu day jib ah bu day jib su booba Cheikh Ibrahima Fall min sel jano borom Touba الجرم شخرفا رحم بال جمبر جيخنا هم بال نيدل جنو خبرة عم دقرم رحم بال نيدل جنو jàmbaar ja Cheikh Ibrahima ba aljani waa jóg leen màggal Cheikh Ibra jar na ko na ko gis ko liggéey ba sa bigge gumba faal jàmbaar ja Seex Ibrahima Faal ni jël jal horon Tuuba ma sa bigge gumba faal Ibrahima Faal déglu leen mooy yaaram Sëriñ Bamba mooy sa maam Faalu ahmar asama sama njaay ya jawolo ma wayla ñetti jukkoo ngi ci moom yoo xëy ni yëpp dafa ànd miim mi ngeeg masla te mi ngeeg masla fa tabaarakallaahu tamit ngeeg mosle kii toog mooy mbokkum réew mi koo seen muy ku baax ci réew mi da daa bokk ak moom kii toog jërte samba yib jóobay maam samba yib jóob borom juddu ba borom ngor ga borom taar ba borom maanu ga borom bëgg lu baax la di jàmbaar di sët ci Seydina Omar tey jii bokka ko toppoon da ngay dem ba ci Seydina Omar mbokk yi noo ngi leen te leen ziar di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye noonu la ñu ziare mboolem kilifa yi diine nekk ci réew mi di ziare ki nga xam ni tey moo woote bis bii fii ci Badar muy sëriñ Cheikhouna Gueye moom alxaaji sëriñ Gueye di ab xalifaam ñu ko ñaanal suñu borom guddal fanaam yokk gërëm barkeb sëriñ Touba di leen ziare yéen ñu toog ñëpp day xarit day wëllëre day soppe. ngeen ànd ak ñun ngir Sëriñ Tuubaa tax ngeen ànd ak ñun ngir sàkk lu baax lu baax na suñ borom a ko moom mi ngi ci loxoom waaye ñu ngi koy ñaan di ko dagaan ci barkim Sëriñ Tuubaa yàlla na ko teg seen loxo ba mboolem aajo joo xam ne am ngeen ko te ñëw fii rek suñ borom faj aajo ji bërëb bi nag ni ma ko si motulaa di laajee bërëb la ci bërëb bi ndax ki ko sañci bari na ay dëkk yu sañc sanc mu sanc mel na ni du fa gis la mu fa bëgg mu juge dem juge fa dem faneen ba sanc na dëkk yu baree bari ci dëkk ci ci ci réew mi muy sëñ Badar Mayib Badar gu mu sanc nag dëkk bu mu sanc nag Badar la ko tuddee loolu doomu soxna Xadi Géey siyaar ji na sëriñ Touba ci njaarim ne ko samaam day jàmbaar la woon lool ci xare Badar ba kooku nag bëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam tax na lim tuddee ci ay doom yonent bi sallallahu alayhi bari na lool sëñ Mor Asta Gueye mi ngeen di wax léegi mooy juróom-ñaareel doom ndax ku mu tuddee yonent bi sallallahu alayhi da ngay dem mu koy def ba sëñ Mor Asta moom moo ci toog jur alxaaji sëriñ géey mi nga xam ne tey ji moo fi woote bis bi sëñ Badar Mbay moomu doonoon ku bari xam-xam doonoon ku bari wilaaya doonoon ku sàmm bëgg tam nit ku sàmm bi mu sancee dëkk bi def na fi loo xam ne ndawal buur du fi ñëw loolu lañ daan wax moom ndawal buur du fa dem ndax képp koo xam ne dugg nga fi rek suñ borom dana tekk see garaat ci barkeem suñ badar muy moomu suñ tubaa bëggoon na ko lool fonkoon ko bind na ay leetar yu bari ci moom di sàkku ci moom téere wala yeneen ba na ci leetar bu mu bind boo xam ne ba tey mu ngi fi suñ tubaa ko bind ba wax ni ko séerim ci séere ci moom muy Habib Guèye moom ku siiw la ci dëddu ak ak sàmm loolu nag suñ tubaa di waxe bakkan ku siiw la moom sëriñ Mayib Guèye Habib Guèye la la ko Sëriñ Tuubaa doon wooye ku sàmm la ci ku sàmm la te dëddu moom Sëriñ Mayib Guèye moom Sëriñ Tuubaa nag mosu koo teg bët waaye yàgg na ko bëgg gis tase nañ ci dëj Sëriñ Tuubaa laajte ni ana Sëriñ Bara Mayib ndax ñëw fi ñu ko ñëw na fi Sëriñ Tuubaa génn ci ëtt bi xool ko gisu ko ñu ne ko maa ci mbedd mi Sëriñ Tuubaa génn ci mbedd mi xool ko gisu ko ñu ne ko ma nga neena di pëndal fas ànd taalibeem di dem suñ Tuubaa nee naroon naa koo topp waaye suñ borom aay na ma topp ku yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax topp ko nga gis rek bëgg gi ko bëggoon suñ balar muy moom nag moo sañ sanc dëkk bi ngir jaamu yàlla bokk na rek ci li nga xam ne ci noonu nag bu suñ mor a su jugee xam naa ak ñu koy doon ñu bari ay ndaw lañ moom suñ moras sax ku liggéeyal suñ mor Moussa jumaay Tuubaa ji def na ci lu bëree bëri waa jumaa Tuubaa def na ci lu bari soxlul woon dara yëpp dama koy tënk rek ngir bañ a guddal euh, ginnaaw ba nag mel na ni yu bari raaf na fi ndax boobu mag ma fi toog amul te jamono neexut waaw ñu bari nekk seen yitte waaleykum salaam ci la sëriñ sëñ Basiiru wax sëñ Mor Alima Gueye ni ko demal baral nga nekk fa waaw sëñ Mor Taal bi nettal la ma ne sëñ Fall bi mu fi jaala ji sëñ Mor Assa dem na ci barabam ba raay bopp bi ba ca tànk daan di war na ku ne sëñ Fall mu dikki toog fii itam daani ku toppoon moor mi toppal moor mi ku toppoon suñ moor sa toppal suñ moor mi la daaw la nelaw ren ji la nelaw moom ko nettali leen ci kanamam ku toppoon moor mi toppal moor mi suñ moor mi nag nekkoon ci taalif suñ basiru moom itam uuf njaboot gépp taxawaay fi taxawaay bu rafet bi mu fi jógee itam meleen ko war a sàmm dëkk bi daal des na ndax jamono neexut njaboot gi ñii ngi Tuuba ñii ngi bërëb yu bari ba yi dal ci kër kilifa yi rek bari na ñoo xam ne suñ Tuuba si yeexaloon ne taxawoon nañ waaye jamono tax na sax ba daanaka seen jeex da nga fay badar gi nag ci dëkk yoo la naroon bokk waaye ginnaaw bi nag alaaji sëriñ Gueye yàlla defal ko lu mu ko defal mu ñëwaat samp waat ci dëkk bi fekkoon na daara gent fi moo ko sampaat gàmm gi suñu war a daan def dem na ba kenn defatu ko moo fi ñëwaat di def ko tool yi nga xam war a suñu war a saako daan wootee tam moo ko wootewaat ci dëkk bi booba tund yëpp daan ñëw loolu mu leen koy defal nag taxaw leen taxawaay boo xam ne moo waral lii cofeel gi waa dëkk yi am ci moom daan faj seen aajo moo xam zahir moo xam baatin eh, ñu fii ci Badar Gueye jëmm joo xamee ni si daa amul mbokk fii ci Badar Gueye muy Serigne Fallou mi Alaaji Njaay cën gën koo xam ci programme ñi tug yàlla tudde ko ko mu njëkk a génn ci gémmiñam di sëñ Mudu Bousso Dieng doomi sëñ Fallou ja ñooñu lu ñuy wax lu ne rek ah maam Samboro ma koy def ci barke bi mu ñëwee nag fii ci Badar jaar ci soxna Ami Gueye wëlbatiku jaar fii ci Serigne Cheikhouna waaye romb sa mag ju baax ji ba dugg fa siyaar ko ah di sëñ Moustapha waaye mu ni ma nan dem ci sëriñ Saliou Guèye Serigne Saliou Guèye mu baax mi Serigne Saliou mi nga xam ni ab radoom la yor lépp loo xam si ni lu baax la ah, maam fépp fa xam fi baax fa ne dina ko fa samp ñoddi ko lëm ci jublu mooy ci xarfe lu baax yàlla def bi ñëwee nag fekk la gi ngay waxtaan ci lu mel noonu rawatina fii ci dëkk bi njabootu sëñ Bara Khourédia Gueye ñëw léegi ah di ñoo xamee ni si ni ñoom itam seen taxawaay ci dëkk bi kenn ku nekk gis na ko bale si ñu ngi leen di wax dalal jàmm ñaan yàlla sàmbrum guddal seenu fan wéral seeni cër ci barkeb Serigne Touba waaye nag jëmm ji nga xamee ni si ni di Serigne ngeen bokk li ngeen bokk digganteem ak sa waajur baax wa ginnaaw bu nu bokkee leen bokk ab yaram ak i tegginam ak maandoom ak tubaar fa kàll macha allah mu rafet boole ko woon kook ak alay sëriñ Gueye ba heure bu ne ak waxtu wu ñu ko daan ànd waaye moom mii tam nag boo gisee nag tam nag ah nii mu def mairie bee ci Touba di monsieur le maire Abdou Lahad Ka yilif ko moom mii mu am te cër boo xam si ni ah ah wax dëgg yàlla benn ci rek la doon koo xamee ni si moo yore communication ba lépp lu commune bi def mën na caa teg baaraam. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sëñ Modou ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ci ni nga xam ne ni nga ubbee waaye nag di sant bu baax di wax alhamdulilah rabil alamin bi ñu ñëwee ci dëkk bi ndax ni nga ko waxee dëkk bi dañu cee bokk. cosaanoo fi suñuy waajur bokk ci ñi fi cosaanoo waaw borom dëkk bi nga xam ne moom la mujjoon ci loxo muy alaaj sëriñ gi seen waajur ma fekk ko fii ñëw fi ca booba la tax ma ñëw ca Ndakaar la ma waxee ne ma Badar day ku ma fa fekk ku ne xam naa ne ñor naa la ma déplacé ak màggal nii boobu gàmmu gi melut nii déplacé ñëw yendu fi mu dalal di sama nijaay fii fekk ci néegu ñax tey yaakaar naa ne wute naa tey dañu toogee mu defaral ma soow ma naan mu kontaan lool maag Seex Sàmb mi ma àndal ma bëgg ñibbi mu ne ma da ngay yenn ma yenn keroog laa njëkk ñëw ba ma ñëw ba mu yàgg mu woo ma ma ñëw mu ne ma nit day xam cosaanu Touba neex na lool sëñ Touba moom lépp waaye fii la sa maam ci wax ma ca yu bëri yoo xam ne man xawma woon noonu demee di doxal loolu ak moom ak man wax dëgg yàlla mu féete woon ma nekk sama nijaay joo xam ne féete woon na ma fu wax dëgg fekk naa ko fu ma maa moom ca Ndakaaru dama fa ba ay gée ñu ànd dem ca booba Dakar fa mu dëkk melutoon noonu beeñ bu rëy moo nekk foofu dañ daan ànd dem bu dix heures jotee neuf heures ñu nekk fa toog ci péex ma ba lañ faa jógee une heure deux heures du matin jot ñu àndaat ñëw ci kër gi ma tàggoo bi boobu man maa ngi jàngee Dakar waaw di dox lool di dox loolu maa ngi moom ci kër gi maa ngi wane télé léegi sëñ Moustapha ne ko alaaj Serigne Gueye cër bi ma moon ci njabootu Serigne Touba man des naa ci seere ñëw naa toog këram ñuy waxtaan di waxtaan ba une heure du matin jëm deux heures du matin alaaj sëñ ma am yor nga war waaye ma ne ko waaw naa ko boobu maa ngi yor quatre cent six bu day waar mu daan ne ma xaar ma tuuti ma dugg ci biir ci génn ñëw ne ma nañ dem jël kaala <laughs> ko daan defee rek sànni fii daan ne ma nañ dem dugg ci oto bi maa ngi xaw ma fu ñu jëm nekk sëñ Saaliw lañ jëm di ñëw ma ni waaw góor gi xanaa dafa sëñ bi fu mu koy seeti heure bi sama xel mhm. ñu dem ñu wàcc mu daal di ma tëjal ñu tëj oto bi ma daal di ànd ak moom ñu wàcc ñu jiit dem ba ca àgg ba ca kees ga mu taxaw fotos bëkk néeg bi yëngu mu ñëw daal di mu nekk ko alal gi daal mu mel ne sëriñ bi daf ko ñu daal di mu dugg muy dem fekk sëñ bi toog nii keroog laa xam ne doomi sëñ Tuubaa moom amuñu heure duñ nelaw mu toog mu daal di nuyoo dem toog ne man ak bëkk ne guuti moo ko laaj sëriñ ma bàyyi leen ñu toog ne bi fa lañ ne ba quatre heures mois defe naa dugg la leen fa tax a jóg ba ñu defee loolu ba génn moom mu woo ma présenté ma sëñ Saliou wax ma ko lam ci wax lépp ma xam ma daal di fay jógee mu ne ma ta ma defee ne dañuy daal di ñibbi boobu man maa ngi gëmmantu ndax fa ma toogoon sax maa ngi xaw a nelaw ma defee ne dañuy ñibbi mu ne ma jëmal wëlbatiku jëmal nii ndal góor gi day nattu ay quatre heures du matin trois heures nga naan jëmal yi fu ñu jëmati heure bi ak koy ñu mu ne ma wutal njenni xam nga njenn ma ne ko am ah, mu ne ma njenn ma ni waay ñu ba njenne ma taxaw ñu wuti ko sëñ Abdou Latif Jenn dem mu defati mu defoon ñu ubbil ko mu nekk fa moom nekk fa nekk fa nekk fa man ba may nelaw ba jëyoo ko ba mu kii mu ñëw wëlbati ko ne mën nañ dem ñu def bi ñu tolloog jumaa ji lañ salaatu xayr mi dégg nga ma xool ne kooku cër yooyu mu amoon njaboot googu ba kenn kuñ ci ne boobu mu di la leneen la waaw dafa am loo xam nit mënu koo nettali ndax danañ ànd ci biir ñuy waxtaan moo may wax ñuy wax moo may wax yoo xam ne loolu du lu ñuy nettali ci rajo kon ma xam ne am na lu ko yàlla mayoon moom laay wax léegi ne leen ku ko xamutoon rek moo ko xamutoon mais alaaj sëriñ moom yàlla mayoon na ko ma topp suñ baaru xuree jëlañ ko tudde kon yéen bu ngeen dajee fii di famille ma ngeen daje fii may itam danaa ci profité nuyuwaale leen santal leen xam ne yéen noo bokk baay noo bokk lépp kon nag ñu ngi leen sant bu baax di sant suñ saaliwu nag ci sorti yi ngay def yu am solo yi may gis di ko seetaan di ko def yëpp ndax àdduna ñi eh, njàngat la te dafay may wax ne am na way yoo xam ne day jàngale am na way yoo xam ne day defar am na way yoo xam ne ku ko dégg da nga xam ne lii addaara la parce que démb damay seetaan si benn vidéo boo def màkk ma taxaw di ko seetaan ngay wax ma kontaan ci lool xam ne kii xam na kii mu jóge ak kii mu ñëw waaw ndax wax ji rek ci ngay xamee ne kee mu jóge xam na ko waaye kii mu ñëw xam na ne xam kee mu jóge te lii Alaaji Fallu wax ku ko dégg xam ni ka fekke mbojj maa xam ne dugub jo toll mbir dégg naa mënees na koo wax waaye gis naa daa gën a wér kon lii mu wax ci sa wi ni rek ay dëgg waaye jitaay boobu mu defoon ak sëriñ Saliou jëmm ji toog rek booba la ko suñu borom a fayee borom got borom jàppandal borom doka borom xaban borom jurul xam nga saa maam daan wax naan boo seen dëkk nit tudde la fa doom nga tudde fa nit doom bool dem maam ca ka nga xam si ni ak kooka ah maam yaa ko tudde sa doom da dem ca kër doom nit ki boo ko tuddee doomam yëg ga ngay ci moom ak bëgg ngay bëgg ci moom moo waral nga tudd ko sa doom